monsieur le coordonnateur ma am style boo xam ne président Macky Sall ci boppam lay waxal ndax jàpp naa ni ci table bi yëpp xëy na maa ko ci gën a xam ndax gën a yàgg moom monsieur le président ñun de ba nuy ànd ak yow gëmuñu woon ne fii la ñuy mujjee ak yow musuñu ko imaginer ndax maître Moussa Diop mii toog ba ci Cheikh Tidiane ba ci yow mii coordonnateur 2011 ñoo àndoon ne ca place de l'obélisque sa soxna di fa maye sandwich di fa joxe ndox bind t-shirt non au troisième mandat sol ko mu ngi ci internet jour boobu ci lañu ñu boom Mamadou Diop yal na yàlla xaare ko àjjana ah ñu ànd ak yow ba fii ñu jàppoon nag ne wax dëgg yàlla mënuñu woon a imaginer ne fii la mbir militaire monsieur le président l'heure est très grave nañ ne l'heure est grave mais elle est très grave monsieur le président bul topp wax naa la ko keroog ñii di la pousse ci lii nga dugg nii amul issue c'est une voie sans issue wax nañu ko Sénégal ñuy def la une de toute la presse internationale am ay mbokk yu ne Japon ancien collègue ñu naan lu xew ñu nekk Amérique latine ci dëkk boo xam ne on l'appelait l'exception africaine l'exception africaine ba ci niñ daan traité les journalistes nga ne woon yow ci sa ay kenn du fi arrêté journaliste tey Sénégal on fait partie de dëkk yi nga xam ne moo ëpp journaliste yu ñu arrêté kon monsieur le président de la république nii nga jàmbaarloo ak say xale dégg naa nga ne vous savez vous battre parce que toujours dañ lay vouvoyer ñun day jiwuñ la loo loo xeex ak suñuy ndaw jiwuñ la jiwuñ la it loo xeex ak ñun seize morts seize monsieur le président defaraatal sa toogaay defaraatal sa toogaay fii ay terroriste newuñu fii man du ma terroriste maag yow a xam nga ma du ma terroriste fii benn terroriste amul ci F24 ça n'existe pas li am kay mooy une jeunesse consciente et qui refuse aussi li nga ko bëgg a teg jëlal di yëpp nga teg ko ci suuf parce que li intéressé Sénégalais yi intéressé aussi yaay yi ñu doon ba ci maam yi mooy jàmm dellu si yoonu jàmm mu ngi ci sa loxo mooy d'abord nga teg affaire procès bii nga xam ne ñëpp jàpp nañ ne du procès ndax koo toppee viol topp ko euh, menace de mort ñu ne la loolu amul la ko la waroon mooy nga ba ko mu ñibbi jëlal say juge comme xam nga ni ngay waxtaanee ak nga jël solution teg lii ci suuf mu jeex xam nga nga koy defee. ñaareel ba nga jël kàddu ne troisième mandat bi kat xëy na mu ngi woon sama xel kooku sax mën nga koo bañ a wax ndax kilifa nga waaye teg naa ko ci suuf. bu ko defee suñu doom yii ne ci biir kaso bi ñu bàyyi leen école a ngi waaj jeex foog ñu def yi bac foog ñu def yi brevet foog ñu terminer seen seen i examen à l'université ñii war a dellu ci atelier yi ñii yor seen commerce ba ci ñi yor boutique mbagg na ci biti mën a dellu ci seen activité waaye nag sunu fukki xale yeeg juróom-benn yi nga xam ne seen bakkan rot na ci kooku moom kenn mënu koo faase waaye nag premier pas pas yii ñu la wax boo ko defee jàmm dellu si waat kon képp koo xam ne yaa ngi dugal sa loxo wala sa xalaat wala sa xel ci voie de solution voie de solution yaa ngi teg procès bii ci suuf xam nga artifice yi ngay jaar juridiquement pour ñu jàll ci leneen ku ne doon candidat Ousmane ko doon candidat Mimi Touré doon candidat ku ne doon candidat Khalifa Ababacar Sall ku ne doon candidat yow nga wut sa candidat yow nga mën a bokk loolu la yàlla dogal. ndax nag dañ laa fal falaat la ñun président dañoo wàccoog yow dañ laa defal teraanga bu ne ndax 2011 nag du njëkk ko woon ci opposition waaye sénégalais yi fal la 2019 ñu ànd ak ak yow ñun ñii ñu ànd ak yow ñu falaat la ci diggante bi 2016 nga ne nul ne peut faire plus de deux ak consécutifs wër ko wax ko fu ne moo tax keroog la nga wax ñu ci bëri comprendre ñu ko am nañu comprendre li musaa wax ne danga ne ñun ñi àndoon ak yow xamoon nañ ne buñ la nee wii dangay am troisième mandat loolu de suñu koo xalaat waaye man la ma jàpp mooy da nga ne opposition ba nga xam ne ñoo doon wax ne boo amee wii da ngay def troisième mandat donc wax ci sax daanaka kenn comprendre waaye la ci yomb te ñëpp jàpp ko mooy nul ne peut perdre plus de deux mandats consécutifs mooy cette situation